dal leen ak jàmm seen entreprise troisième menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati bëgg ay ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina bu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie

TV asalaamaaleykum waaw maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur seen sant waa ñu fa yéene delloo mum ta mooy mooy ga rek comme lañ ko naan defee saa su ne nee naa la nii la ñuy nekkee ak ba ko war a koor gi jeex waaw ñu seet si waa daayira Xidmatul Xadim nekkee fi si ci yëmbal waaw ci euh, jumaay laayeen bi ñu ñëw seet si leen ñu fas yéene wax waxtaan ak ñoom daal di xool nan la ñuy daal di fas yéene joxe seen i ndogu waaye dañu fas yéene jàkkaarloo ak euh, jëwriñ Bass rek ñu daal di waxtaan ak moom daal di sëfante ak ay kaddu dugg ci biir rek xool waa daayira Xidmatul Xadim nan la ñuy daal di joxe seen ndogu ci seen émission kay ndogu ñu bokk taalibe la ñu bokk tëkk fii si biir koñ bi xam nga ñun xamuñu ko dara lu dul xam nga liggéeyal Serigne Touba waa ah, waaw te yàlla rek tax waaw ah, di ko ñaanal nag xam nga ñu yàgg koo fekkee ay at yu bare bëree bëree bëri barke Serigne Touba waaw ah, li ñu mun ren rek dañ ci mun naat lu gën a kawe suñu njort déwén xam ñu mu gën a yaatu daal incha allah rek waaw di bëggee mbokk taalibe yëpp incha allah di waaw di waa daal góor yàlla yëpp di bëggee gaa yëpp waaw di wax auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasala abada ala lasi bihi la naahu tarbada sayidina muhammadin wal ali wa sahbi sawi na wali wali waaw ginnaaw lool dañuy siyaar ñëpp di nuy ñëpp ñi nga ñoom lañ fekk si fii nii waaw ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn cat ba cat waaw ngir maanaam li yombul daal boo gisee suñu teewaay maanaam loolu la bëgg a leeral ñoom li ñuy jaayante nii yombul daal ak Serigne Touba fi maanaam ak jamono ji fi mu toll nii maanaam maanaam bëri na kuréel yoo xam te ni maanaam ngi dox leneen loo xam te ni du yàlla du yonent bi du Serigne Touba du Mouhamadou Rasulullah dañ koy dundee du leen neexee waaw maanaam comme kii dafa am dimbal ndax moom bis bii muy samp nii sax moom ma ngi koy def sax mais xamu ko ngir maanaam ku nga xam ne ne bis bii nii la maanaam buur yàlla bi si la joxoon boppam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul muy Serigne Touba kon moom bu koy màggal rek kon am na cër Cheikh Ibra ngir moom yàlla képp lay dund yàlla lay dund parce que Serigne Touba Mbacké. Cheikh Fall ma ñëw billahi kon yàlla seeral Fall ñu ngi sant bu baax a baax kontaan naa trop waa ji yëpp rafet na vraiment kontaan naa ñëpp yal na leen yàlla dimbali bàyyi leen seen sant seen bët seen kàttan ngeen koy mën a teewe yu bëree bëri ngeen di ko ñu jabo ñu ak ci waaw waaw Serigne Touba maam Thierno Ibrahima Faty Ndama la sa daaru muy sunu yaakaar tey ëllëg waaw di am contentement ci bis bi rek yaakaar naa ni ñaar fukki fan yi moom bu ne xam ne Cheikh Ibrahima bi ci waaye def lu nekk day gën a yokk mais doo am tànk ginnaaw boo xoolee ci biñ tàmbalee yaakaar naa ci benn lañ tàmbalee woon tey boo xoolee tey li fi tego ci mbana mën na dix mbana kon yaakaar naa rek moo jara te yaakaar naa ni lii ñu def nii nii tey ngir jëmm ji yi nga xam ne si chaque année da koy bokk bokk taal bi am muy sa ñax lu nekk nga génnee ko teg ci taabal yi xam nga dañuy ñaan yàlla tamit sëb bi gën doole poos tamit te yaakaar naa ne lii fee ñu ngi koy def du ñàkk dara donte ay ndaw lañ nag tamit xam nga mais sëy bi moom bisam bii nii maam maam li def lu nekk bu dëgg yàlla incha allah duñ gis daal di am fandaan damaa nag ko remercier bu baax yow yow Baye Fall te Baye Fall gi mu wane bari yaakaar naa ne dëggu na bu baax ko ñaanal yàlla gudd fan rek baw waa mbokk yi ñu la indil tey seen émission kay dogu ñu seet si woon waa daayira Xidmatul Xadim nekkee fii ci yëmbal ci jàkkaay ndaween waa ñu seet si woon leen mu tombeek nag guddi Cheikh Ibra Fall mu nekk fukki fan euh, ñaar fukki fan ci koor gi waa ñu koy màggalee guddi Cheikh Ibrahima Fall doo gis Baay Faal yi ku ci nekk jëgatu nga ku ci nekk def nga li nga mën joxe nga say ndogu na nga ko war a joxe ngeen gis ko ñëpp ñu fas yéene taalal tali bi rek daal di jox képp koo xamante ne rek ndogu fekk na la si yoon bi seen émission ndogu kay ndogu nii lay demee saa su ne bàyyeeguñu ak yéen ba koor gi jeex damay jaajëfal Siré sama caméraman ak bépp mbooleem ki nga xamante ne teewoon nga si bés bi mu nekk seen émission kay ndogu ak mbokk internet Thiaroye Info TV ñu leen di jaajëfal